léegi ma lay poser benn question xam naa réponse bi waaye jamono ko laaj ndax yow am nga fitu yore sa carte de war yow Modou Mbaye Samb ne da ngay wate ji dem wateel kudul biral jërëjëfe Serigne tuubaa bàyyi koo xam ne déngoo mu biral ko ndax yow ñeme nga xalaatuma ko ngo waxaale nga ñëpp ma ñëw ma ne kon gis ngeen penku xam nga damay wormaal sant wi duma ko tudd sant bu so dama koy wormaal mais li xew te démocratie xewal ko ak liberté xewal ko Macky dem fee Touba def fa lam fa def jébbal boppam Serigne Saliou mu ya dénk ko Serigne Mbacké Soxna Lo mu dem hmm? addunay dox

bu leen di waxtaan su may wax gënul gënul Modou Mbaye Samb ñi koy def ñoo nu ëpp fit maag yow ñi dëkk tuuba dëkk ci seize commune yi di wateel keneen ku dul mag yi kooku maag yow ñoo ñoo nu ëpp fit man ñi moo ko man xalaatuma ko man ah, loolu jeex na jarul ay wax leneen la ca des ma kay ngi koy liggéey ak i gaayam maa ngi koy liggéey ak samay gaay léegi man ku nekk sa façon man naa ngay samay pexe jërëjëf Serigne Touba fukk la ak ñaar benn bu nekk dinaa ci defal Mbàkke lu ma neex man dama bëgg képp kuy soppe mbaa nga bokk ci man foo mën a nekk ci réew mi nga ànd ak Mbàkke xam nga waxuñu ay parrainage ak yooyu am na sax kilifa gu ma doon wax ci téléphone naan ma yéen comme seeni parrainage dafa bari ah te joxu leen ko Macky parce que mbir yi jàll na ndax mënoo cee wut lu joxe ndigal ñu wut ci mille pour mottali xuma kan ma ne ko ma ne ko balaa professeur seen déggee de ak Abou Sam ma ne ko ça ne se fait pas loolu kenn du ko def mbir yi jàll na jàll na waaw mënoon na maa jël clé ba dem jox ko président Macky ne ko temps la waaye defuma ko. lu jàll ba noppi da ngay bàyyi mu jàll waaye bàyyi ba jaan jàll nga topp ci watis ba naan fii la jaar naan tépp tépp non kenn du réew mi ak bitim réew fu sama soppe nekk yor carte ne da ngay woote na nga ko jërëjëf Serigne Touba jaral kum ko jaral lu nag jaaral nii ma jaaral nii am nga ci droit bon démocratie bi kenn forcé kenn kum ko jaral laa wax jërëjëf Serigne Bambay Macky jawoon ca Mbacke waxuma jëri si jëfe Serigne Touba yi ci topp ndax yooyu politique de vérité la bële na bële bële moom vérité vérité absolue vérité absolue ci xol ba la jóge li jóge ci xol day gën a dëgër li jóge ci xel mais li jóge ci xel bu fekkee lu baax la itam day dem fekk li jóge ci xol wasalaam